bismillah fan la Sénégal jëm ak coow li lée Hissène Habré ba soob li ne Hissène Habré moome danañu ko denc tey jile ca Yoff allahu akbar 24 heures yéene kaa ne coowal Hissène Habré googe waaw maître Djibril War est-ce que nekkul ne mi ngi bëgg am dëgg nag ci kaw Macky Sall mi lé lu tax waxoon na ci ne Macky Sall mi lé mën naa libérer Hissène Habré au nom du droit international humanitaire sur ce année Macky Sall day waaw loxoom la bëgg a dugal na ci dëju Hissène Habré bi lé aha waaw xanaa xamoo leen ne denc Hissène Habré bi tuxal nañ ko pax ma day gas nañ ko niki démb laa la wax dama ne la Macky Sall ci boppam moo bëgg a jël alalam def ko ci dëju Hissène Habré bi lé cay corona bi corona boobee na la mu def na ca Grand Magal Touba 2020 corona daal dina ko yokk ginnaaw ba màggal tuubaaw daaw boobee daal di jeexee ab rapport ci boppam kon moo ko wax du samay kaddu laaste lu ci tolloo juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ci ay doomu adama day la ñu faj ñu wér ci corona gi dama la Sénégal kay mës ta am loole te jamono joo xam ne ne corona jooje ma ngay rey waaw inondation yee ngi rey askan mi daala wax Kajali Gassama économiste ci exclusive yéen kaay waaw nee ci dëkkin wala mangaan ga dëkkin woo bokk na ci ci Cap-Vert waaw Dakar Times waa mission d'information parlementaire ci xaalis bi xam ne def nañ ko kon ci plan national de lutte contre les inondations dix ans Macky Sall yi lée fan la toll Anabab Sagna Mbaye ak ñama àndaloon ca liggéey ba lan lañ wax nee nañ avril 2012 ba décembre 2012 yi def nañ ci ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk xam ne dafa xam ne askan waruñ faa dëkk ca Kër Massar gële askan wa dañoo yokk fa ndox ma waroon a jaar fat dëkkin wu leen neex ñoom député yooyee waaw nee nañ lu tolloo juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yu teges lëf ci ay milliards 766 milliards 988 millions 450 mille 362 ci xaalis waaw waaye 511 milliards yu teges lëf lañ te defagum eh waay Samba balaa may dee rek waa APR di méngale inondation Sénégal ak yu Allemagne yële kii Mari Sagna ci 24 heures waaw ne inondation yi xamalan moo tax mu ngi yàgg fii ci Sénégal ndox mi waaw mais parce que ñi mu dal dañoo ndóol bokku ñoo tubaab yi de déedéet enquête yéene kaa ministre Omar Gueye mooy monsieur inondation monsieur njàng meeg njàngale mi lée Mamadou Talla Le Quotidien yéene kaa ne fanweeri milliards yiñ nekkoon dañu koy ñawalee xale ay toni bu ñuy jàng di ko sol waaw coow laa ngay yokku de parce que Cheikh Bamba Dièye day dindi na nag ab laaje ministre éducation nationale ko bind waaw lan mooy njariñu fanweeri milliards nga koy def ci ay yoo xam ne xale dañ ko na direct news de tricherie di tappale gi nga xam ne moom lañ gis ci wàllu njàng meeg bi ñàkk jom yorin gu bon gi ci école bi la daam sek waaw wax na lii miti yëpp de nee xeetu tappale gi nga xam ne moom la ñu gis ci wàllum BFM ba baccalauréat tricherie gi waaw tax na ba diplôme amatul valeur te am na yenn ci ay borom yi école yoo xam ne yu dëgër bopp dañ ciy am xaalis su bare bari sax maar di taali daam sek ne a dal jiw gu bon gi nga xam ne kon moom lañ nekk ci école bii di ko l'Observateur yéene kaay ne waaye nguur gi est-ce que tamit na xiifuñu ñu mar produit yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew yëpp yokku nañ ko de mar day taali directeur douane di Abdourahmane Dieye génnee na benn note laa wax dëggal loolu transitaires yi commerçant yi nag fi mer ba mar day taali laa la wax danañu yënga-yëngal de ma ne produit yi jóge bitim réew yëpp dañ leen a nar a yokk terminé yéene kaay ne dama ne la produit yi yëpp daal genn xeetu sonn koo xam ne mar day taali dama yokk nañu ganaar ga yokk na te ña nga xam ne nag ñoo cay gën a moo tax la def yu baree bari fi mu nekk ni lée toxi nañu de da caa am ak ñoo xam ne lu leen neex lañ cay def waaye lan moo tax ba Mimran mi borom compagnie sucrière sénégalaise lu ko neex def looloo jaaxal ñi tubaab bi lu ko neex def te jamono jooju yi nga xam ne nag yaa ngi sonn ba maara dee parti socialiste sonn nañ de yëngu na de parti ba yëngu na de le mandat yéene kaay ne xeexaam ci diggante Aliou Ndoye ak Serigne Mbaye Thiam est-ce que fi mu nekk nii doy na waar laast Parcelles Assainies gi nga la Ndoye waaw na mbir ma nan la Ndoye ci waaw gis nga Mamadou la dara ci politique te Amadou Ndoye na wax ne ne fukki million ak nga kon ko fay ci élection locale yi day indépendant yi waaw am nañ lu leen de Demba Makalu Sacré-Cœur Ndaw Golf Sud waaw ak nu duñu ci élection yi ak gagné ko Fafana processus électoral bi ci waaw lañ ñu bëgg xañ candidat indépendant yi day ña xool nag nu ñu booloo ñoom ñëpp ngir bokk liste laaste am na yenn ci ay homme politique yoo xam ne day waaw war na ñoo xool na ana lan la ñuy peese rajo yeeg télé Sud Quotidien opposition bi booloo nekk benn waaw loolee mënul ne mënuñoo déggoo déedéet Momar Diong journaliste analyste politique waaw nee na opposition bi yëpp booloo ci benn cadre rek loolee mënul ne laaste Macky Sall day waaw waa Benno Bokk Yaakaar jox nañ ko carte blanche nee nañ ko doxalal box boobu di ne te jamono joo xam ne nag opposition baa ngi tas ani tas Sall waaw Macky Sall day démb dajale na leader yi leaderu Benno Bokk Yaakaar yi waaw ngir waajale élection locale 2022 yi lée Macky Sall nee na leen il faut que ñu wóolu wante bëggante mooy tax suñu ndam yi di rëy ak a yaat te investiture yii waaw ay critères yu dëgër kët jub koc lañ ko war a lal ngir mën a gagné élection yi di ñëw Walf Fadjri ne candidat indépendant yi day caution ba day mooy nekk luy miti ca ñoom waaye suffrage universel direct bi lée dalee na yoon jënd ay conseillers amul de last eh, mairie Amadou Jaraba day waa kër Thierno Alassane ñoo fa doon xeex juróom benn am nañ ca ay gaañu gaañu dee ñeenti yi lée ñoo ànd ak Amadou Jara ñaari ñoo ànd ak Thierno Alassane Sall République des valeurs chef de protocole Amadou Jara ba day teg nañ ko loxo de l'Observateur ne coowal Dieyna Baldé bi lée ndekete mbir mi gën naa garaaw lañu ko yaakaare woon laa la wax naar day taal dama ne la Dieyna Baldé démb ci boppam lañ ko génnee fañ ko téye woon yóbbu ko ca canal ba nekk ca ginnaaw gendarmerie bu Foire te Dieyna kat nekkoon ak beneen actrice libération yéene kaa ne Dieyna opération boo xam ne pour yàq waa ji laa la wax ndax ba mu demee ca kanamu takk der ya day moom Dieyna Baldé waaw <laughs> lam fa doy na waar dama ne la xale bu jigéen bi nee na leeroon na ko ni day faram wii daan na génn yeneen xale yu jigéen ba ci mari su sax ndeke rappeur bi da doon génn ak moom ci suuf critique yéene kaay ne conseil constitutionnel day waaw sage yo mujj nañoo jubal de prêté nañ serment démb de yéene kaay gi ne xeex ba am ca RTS waaw Mariam Faye Sall day di dimbali kon Racine Talla xam ngeen lan